Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nee nga sànq foog ñu bokk ndey bokk baay bu ko defee li ñuy liggéey pour Sénégal ñu mën caa yàgg yegg mu am njëriñ waaye nag am na loo fàtte loolu lépp bu amee it il faut ñu respecter charte bi nga xam ne moom la ñu bokk muy constitution ma bëgg a xam monsieur le premier ministre te man rek bëgguma koo xam ndax yow yaay jëwriñu jëwriñ yi ndax ba tey yaa ngi confirmé ne président Macky Sall février 2024 ci lay pare ndax constitution nee na nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs monsieur le premier ministre intellectuel nga je suis sûr que vous apporterez une réponse claire à ma question waxuñu ni oui mais nga wax ñu vraiment li nga xam ne moom la sénégalais yi aussi ba nga xam ndax président de la république février 2024 bu fekkee ne ci lay pare sa plan d'action ci 12 mois la du sax 14 ci 12 mois la bu ko defee ci 12 mois yooyu li nga xam ne mooy liggéey yi nga xam ne moom nga war a def ak budget bi nga wax ko sénégalais yi ñu dégg ko lii nga xam ne moom nga wax ne war nañoo am taxawaay war nañ moo bokk ndey ak baay peut-être que groupe parlementaire bi war na koo njëkke war na koo teewe monsieur le premier ministre je suis sûr que vous êtes un intellectuel chers collègues déglu leen ko mu euh, wax fonctionnaire émérite déglu mu wax vous avez été ministre des finances ànd nañu man ak yow défendre la même chose 2016 ñun ñëpp ànd fii ñiit fi toog ñëpp ñoo àndoon ne constitution 2016 bi dañu ko verrouiller que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ñu dépensé ci milliards yu dul jeex encore une fois monsieur le premier ministre Sénégal bëgg na dégg sa position sa ñii di wax it sax bëgg nañ ñoo dégg sa position pour xam ndax président Macky Sall dafa war a def troisième mandat am déet waaye yow defe naa ne ànd nañ man yow président de groupe ak ñi ñëpp wax sénégalais yi ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs kon bu ñu buggee réew jàmm di ci am stabilité di ci am pour que lii nga présenté te nga war ko def ci douze mois pas treize pas quatorze il faut que ñu am stabilité pour que ñu am stabilité il faut que ñuy respecter nos institutions c'est la base de notre vivre ensemble, c'est la base de la stabilité. Comme Monsieur le Premier ministre, il faudrait que sur cette question, vous preniez votre courage à deux mains et que vous confirmiez que le président Merci, ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. chers collègues. La parole est à notre collègue Aliou Dembassou. hoorejo suudu sarɗiji leydi sénégal